njiitu réew mi Macky Sall gisi ko nee nañu keroog àjjuma ba muy daje ak gaay ci société civile gi wax na leen ay dëggam wér péng nee na leen chef d'état gi ma doon tax na du ma nangu kenn di wañ sama loxo bu mbir xewee nag nangu naa ñu toog waxtaane ko ba saafara judd ci waaye ab état di yox-yoxi ci benn faat na waru ko waxi troisième mandat bi yéenekaay bi nee nañu wax na ci ak ñoom ba sàkku ci ñoom ñu arrêté débat boobee ndax nee na leen musuma taxaw ma wax kenn ne damay def troisième mandat nañu àndandoo liggéey réew mi ndax mënuñu fee nekk fukki yu nekk ba fukki weer ak ñaar yu nekk ñu bëgg a organiser ci réew mi njiitu Sall yéenekaay bi nee nañu wax ne gars yi ci société civile gi ne leen nit mënut a nekk cim réew justice réew ma soxla ko mu bañ a dem wuy ji ne muy Abdoulaye Wade di Idrissa Seck ba ci man mi ku ci nekk jaar nga ci bi justice woowee li nga doon def yëpp danga koo bàyyi dem wuy ji ko